benn moment nga ma wax ma ko. ci suba bi. nga ni ma lan. man ñaar mbir moom gën a nekk si bi. mooy tey coupe bi fi ñëw France Sénégal. Hmm. mars. moom ah. loolu du muy du ma ñaar hmm. wala Abdoulaye. Moussa mooy tul dem de. moytu la dem de booy de ñu ngi fi di la xaar ci buntu TikTok bi la ñuy taxaw. waaw xam nga ragal tuuti. Mm-hmm. day xañ wërsëg. tey bu dee mbiru Sénégal. Mm-hmm. kenn du féete fee kii féete ñun ñëpp day am fu ñuy féete. Mm-hmm. donte que dina am ñoom Sénégal sax mais nañ ko nëbb ci suuf. lii rek nekkatul mbiru Sénégal. mbiru gox la ak gox. dëgg la ku ne da ngay si mbër dem si moom yaakaar. waa Pikine fii ba suba. boo leen ne Modou Lô dina daan Ama Baldé duñ ko ba suba boo ne ko hmm. hmm. ku nekk fi nga nekk duñ taxaw su lu wér am gëm-gëm ak sañ-sañ ay yaqin ñu hmm. boo déggee Ama Baldé ñu waxee nga xam di ko di waaw ah, gis naa confiance bu rëy bu muy dégager moom dem ba taxaw toll ni Modou Lô roi ñëpp di la en direct nga taxaw ñu barke sëñ Fall dinaa war sa kaw mais li la xam ne ko wax lu wér lañ ko dee. Mm-hmm. mais tamit mënut bay lekk di cëpp lekk ni néegal te ama am na leneen lu mu wax yamul ci dina daan Modou Lo mais nee ko bi nga dalee bëri ba léegi mosoo dem. ardo te dinaa la yóbbu. Modou Lo moom mbër buy génnee dina dem si lamb jàmm ah sëñ bi est-ce que du da far rek. parce que nag ñaa yamatoo ci ñaanal Modou Lo rek. mais damaa ragal da ngaa far. waaw xam Ama Baldé bu ñu xoolee si benn bu dee fit <laughs> am na fit de. ñett bu dee jàppale lu ah. bu dee baat na mu la am na fit am na doole sëñ bi am na jàppale. ku daan Papa hmm. daan Tapha hmm. daan Zos. waaw xam nga Ama Baldé ba jëli. daan Balla Diouf. waaw <laughs> ah, waaw Ama Baldé Ama Baldé. Hmm. ku taxaw ne du ndaanan xamoo làmb ndaanan pire la pire nekk ndaan moo waral mu waay fa ay morom moom egg fu mu di bëgg wala hmm. am na fi am na sañ am na garag am tamit jàppale am na ginnaaw mais nag mbooloo mooy day jafe-jafe. Hmm. waaw lu waay wax wax wax bëgg seen ba yéen a mën a combat Modou Lo Ama a ñu ñoo xool daf du ñax ñu bëri ko. Hmm. loolu na solo. lu lu war a guy gi bi ak euh, Reug Reug. maa ngi ñaan guy gi bu baax a baax a baax yàlla nañu ko ndam. nga koo xam. déedéet da nga koo yéene koo yéene ndam ndax du euh, du cuune du champion la te xolam dafa rafet. Hmm. seetaan naa sa émission. bu mu def ak yow. Hmm. mooy turu xéewal hmm. fii yàlla moo fi nekk kenn nekk ku yàlla nga nekk si lu mu war a nekk dem say entraînement am ko gérer di ko gérer yow. <laughs> bi da ngaa jël engagement ci guy gi te xamoo guy gi. waaw loolu ma jaaxal. waaw xaw ma ko mais nee naa damaa seen interview bu mu def ak yow. si wax yu mu si wax. Hmm. ay ñoom ñoo bokk moom benn gox. di ko xeex pour mu daan loolu nag yàgg na Sénégal. waaye ku ne am nga seen seen loolu. Hmm. fi ñu toog dinañ jël suñu course jël suñu lépp di ko ñaan ba yàlla may ko ndam te si kattan suñu borom dina am ndam hmm. hmm. pour ñu préparer bu vaar si kattan suñu borom <laughs> mbokk yi ma leen di jaajëfal bu baax loolu nag engagement wu Serigne Mor la ba moo ko jël engagement boobu nag comme moo ko jël bu demee VAR kon baax na ñu koy jaajëfal bu baax